jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu ci m TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. tiis bu metti bi rekk bi nga xam ni moo dal file ci réew mi rawatina bus tata bi nga xam ni rek moom lañu ñu daal di attaqué daal di fay sànni ab cocktail molotov ba ñaar rekk ci doomu aadama daal di ciy faatu Fatoumata Diallo moom mi ngi daal di am rek ñaar fukki at ak benn ak Umu Kultum Li Diallo moom rek mi ngi am juróom ñaari at muy daa ñaari xale yoo xam ne rek ginnaaw bi ñu sànnee cocktail molotov bile ca bus bi ci talaata gile ñoo ca daal di faatu moom nag mu nekk doom ci rekk ab benn immigré bu nekk foofee ca Espagne ñu dëkk nag ca Medina file ci Ndakaaru bu ñu sukkandikoo ci suñu nattango yi le sax nag di waa Seneweb ñoom ñu ñuy xamal xibaar bile. ñaari xale yi jigéen yooyu dañoo jóge nun rek ngir ñibbi seen kër ca yoon nga sax ka ñuy woowee Fatoumata Binta Diallo moom daal di nay woo xaritam di Aïcha Diallo daal di koy wax ni ma ngay jóge Kounoune ngir nag daal di ñëw rek foofe ca Medina ginnaaw googe sax mu ni kon euh, tata bu nag ligne 65 bi laa laa di dugg mi ngi yemoog nag fi mu tollu ca boo maraîcher ca Pikine ginnaaw gi la ko wax ni sax nag fii ak fanweeri minute rek moomee dina daal di yegg si mu mel ni appel boobe rek moo daal di mujj sax ca seen diggante ginnaaw gi rek bi nga xam ni famille bi ñoom yëg na ñi am na ab woto bu jugee ca Kounoune rek te taal nañ ko ca digganteeg moom yaraax mu mel ni sax nag moom ñaari doomu aadama daal di nañ ciy faatu ñoom ca la ñu dawoon ni dem hôpital bu Pikine ba tey rek suñu natango di ñu xamal ni boobe sax seen wayjur yi ñoom ñëwaguñu woon waaye nag ña ca gaañu ñoom xool nañ leen rek waaye mu mel ni gisaguñ leen ci lañu daw itam daal dem foofee ca brigade bu aan ginnaaw gi def ab déclaration waaye nag mujj nañoo gis seen mbokk yooyu daal di faatu jamono ji sax ñu ñuy xamal ni ña nga foofee ci hôpital dalal jàmm bu Guédiawaye